di wax ne lii xew ci élection présidentielle deux mille vingt quatre bii élection boo xam ne ndamal peuple ndax askan Sénégal nii dafa xeex pour que élection am dem ci jàmm wote ji tànn ak président ci jàmm ñu sant yàlla nag ci bu ñu mayee ñu doon ñoo xamante ne moom ñoom lañ tànn.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 loolu di wane que Sénégal benn xeetu askan la boo xamante ne askan bu màgg la xam lu mu bëgg la askanu bañkat la xam ne jàmm rek a ko soxal di rafetlu tamit taxawaayu président de la république Macky ndax ci fan yii ñu weesu taxawaayam moo waral ñu am élection bi mel bi ñu am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 yu mel noonu Sénégal incha allah dootu fi di wax na rek askanu Sénégal ak lu ñu mën di wax mën nañ ko seedal ne ñu fonk seen bopp la ñu xam fu ñu bëgg a jëm la ñu bëgg ay nit yu baax nañu te ñuy ñu bañ monteel la ak injustice may félicité jaajëfal di ndokkeel ñi nga xamante ne ay leaderu parti politique lañu wala leaderu association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 ak yoonal ak jub ak jubal ak jubanti waaye tamit ak jox cër bu mat askanu Sénégal yëpp ndax gannaaw ñoom lii mënul woon am tànneef bi seeni tànneef la jëmakaay bi ñoom ñoo koy wale te bu soobee rek nañ ci ànd ak doomu Sénégal yëpp loolu nag mënta am tànk taxawuñu ci xeex guerre ba pare jël lépp loo xamante ne mën nañ ko ci suñu kattan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 doomu Sénégal ñoo ci nekk ñi nekk ci beneen boor bi tamit di kujje gi ay doomu Sénégal ñoo ca nekk ku ci nekk jàpp nañ ci yàqin ne liy defar Sénégal moo la tax nga taxaw loolu nag dinañ ci ànd ak ñëpp waxtaan ceeg ñëpp te dalal ñëpp ne lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci kujje gi ñu bokk ci parti politique ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk. te mënuñu ko seddoo muy Sénégal di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection bi muy ñi yore woon les leaders ñu ko waxee sànq parti politique yëpp ñu bokk ci coalition Diomaye président di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore communication bi wala ñu yore organisation bi bu ñu def campagne bu mucc ay bu fekk fu ñu dem fekk fa ay Sénégal yi ñu teew fi ñu waxtu gu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu ñu egg ak fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière un homme je pense que j'ai pas besoin de le citer pour ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba Sénégal yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar bu ma jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ni man kese bu dul man loolu keneen ci gannaaw kon du mën a am waaye yemul ci loolu yemul ci loolu parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg suba ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar ci suba donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci ñi gis rek ci lu fës dañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci la waral résultat bi kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa ba nit ñi retenir dara loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér gu yaram ba yéene ki nga xamante ne ak ñu ci àndal ñëpp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci senegal bu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu ñu may ko xel gën ko ci àdduna ak euh, ñu ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu combat yi nga xamante ne daan nañ ko xeex mu doon combat yoo xamante ne combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel. mbokki Sénégal ku doon laajte Faly Ngoye ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee danga am jafe-jafe ci sa wàllu wér yaram dama ne nga am jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne danga nga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy sa borom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa yaram daal di tëju ba loo ba mu dëgër ngay déposé ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bañ bëgg dee ñëwal seet si soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi wër ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord ne soxna aada seexu yàlla bi mooy dàllinkóor ci wàllu seet moo lay xool teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba ba dama ne seet moo ci man ci Sénégal moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne te ay cangatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu bil la ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon